le samedi 22 juillet 2023 à l'arène nationale mbokk yi déglu leen Mousnakh production moo woote bés bu mag ci diggante caatu Kairé ak Cheikh ñan lamb ndaanaan la lamb jàmbaar la waaye Mousnakh du yem foofu ndax dalay indil allemand boole ko ak junior ñaq jariñu numéro deux jàkkaarloo fa ak Njaay Waalo Chikorien ak nekku relu numéro 2 Moussa Rëg-Rëg ak Ngom Flèche bébé ëmma jàkkaarloo fa ak fils de rone mbokk yi Géej Senghor jàkkaarloo fa ak jàpp jeex waaye booy Niang numéro 2 ak ordinateur dinañu fa jàkkaarloo Gaynde Nooto jàkkaarloo fa ak fils de Diagne Saly liste numéro 2 jàkkaarloo fa ak doubles numéro 2 mbokk yi Mouss-Nakh production nag wéetul ci bés bi benn yoon ndax Harmonia da koy gunge ETDR établissement Touba Darou Rahman King Boisson entrée supporter mu ne 2000 francs loge officielle mu ne 10 000 francs ci le 22 juillet ci nationale ñu ànd ci ak mouss nax production jërëjëf mbokk internet ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare am mbégte ak contentement ñëw fii Pikine kër booy Niang ginnaaw bi nga xamante ne yóbbu na ay waajuram màkk ren ñu dem ziyaare ji yonent bi di ñaan yàlla lépp loo nga xamante ne ñaan nañ fa rek yàlla na ko yàlla nangu waaye wis ko tamit ci réew mi wis ko tamit ci àdduna bi yëpp bu doon jàmm ñu fekk fi tamit koo xamante ne suñu xarit la di Cheikh Tidiane ah ku xam xam ko ak booy ñaa Boy Niang ku ko xam xam ko ak famille bi ngeen ñëw ziyaare si tey ñi nga xamante ne ñooy ay waajuram jóge gi nga xamante ne jóge nañ màkk Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaar ngi lay fay di nuyu àddina yëpp mboolem koo xam ne yaa ngi ñuy suivre ci à travers Lutte TV ñu ngi lay nuyu. ak les arènes. di nuyu mboolem sénégalais yi di nuyu kilifa diine yëpp di ñaan yàlla jàmm ci réew mi ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu ngi fi daje di sargal suñuy waajur euh, mooy waajuru Boy Niang nekk ay nit ñu baax demoon jooxi seen farata ca makkatal mukarrama yàlla indi leen ci jàmm ñu ngi leen di ñaanal kaala gi ràpp ak jàmm di ñaan lépp luñ fa ñaan yàlla barkeel ko ñoom nag euh, dëgg dëgg di ndokkeel booy ñaa gis nañ ni mu taxaw ay waajuram biñ fi njëkkee ñëw papam def ñu ne yéen ay xaritu Boy ñaa ñun ay waajuram ñoo njëkk nekk ay xaritam kon loolu dal na xel kon moom Boy Niang ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla defal ko tawfiix ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa ñoom di leen tàllal loxo yi rek ñu ñaanal ñu yàlla yow tamit ñu ngi lay suivre di la ñaanal yaag ñi ngay liggéeyal yëpp yàlla jëmale la kanam ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booy ñaa moom yàlla moo ma booleeg moom mu nekk xarit boo xam ne xarit bu may ndam la di ko puukare woo di chaque jour di gën a sabar sama xaritoo ak moom ndaxte nit ku mën nitam la nit kuy rafetal jëflante la nit ku koo xam ne nii la yàlla yëkkati na ko waaye ku wàccee boppam la ku fonk ay xaritam lépp lu ñuy xewle mu nekk la lu neex wala safaan dafay teew kon moom nag gis nañ fi mu teg ay waajuram moo tax bésam bi dañuy ñëw ànd ak suñuy mbokk ak maa ngi ànd ak Ousmane mi ca France la jógee nekk sama jarbaat nekk sama mbokk Cheikh Thierno Chérif Dia mu ngi nii tamit ñoo ànd ak beneen délégation buy ñëw waxte booy ñaa dafa bokk si ñun yal na yàlla def jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Gamou Ndoyeen gi kañ la. Gamou Ndoyeen moom des na tuuti. incha allah waaw Yves. Babacar wax na waxtaan ak Yves Niang waxtaan boo ñëwee ci ñaari kàddu. waaw. mën naa nekk kay. Yves ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi sant yàlla baax a baax. alhamdulilah waa di wax ni kontaan naa rek kontaanati naa laay wax ndax euh, sama rakk ji moom sama lépp la moom yaayam sama mag la papaam sama mag la kon tey ji maag moom ñoo bokk lépp mais ca suñuy maam yàlla woon Cheikh Rundu Mbaan ak Cheikh Moro Bëggay Cheikh Moro Bëggay mooy sama maam moom Cheikh Rundu Mbaan mooy maamam te ñaari kër yi benn la ca Tiwaawan kii di Cheikhu Cheikh na Cheikh Sadbu kii di Cheikhu Serigne ñu bokk lépp ñaari kër yi jaxasoo kon moom tey jii teraanga ji mu defal ndeyam ak baayam du ma wax ni def nga lu baax dama naan defati na lu baax ndax ba mu xàmmee ba ma nal boppam mën a am fukki dërëm la mu am lépp mi ngi koy bokk ak ndeyam ak baayam kon tey jii vraiment bu tabaxee kër dugal leen ci jël leen ñoom ñaar yóbbu leen màkka su ma toogee sama kër vraiment di bàyyi loolu muy jàll du ma gor moo tax ma déplacé wu ñëw lii nag mu def yàlla na ko la ay ndam yu bare bëri ci barke Seydina Mohamed yàlla na ci dégg roi des arènes ndax dangaa marqué bu rëy sa papa ak sa yaay nga yóbbu leen ca Seydina Mohamed def nga lu rëy sallallahu alayhi wa na nga dund bañ lay teeru nga jóge Màkka ci barke Seydina Mohamed wax ju du mën a bëri posé question am wax ñu wàcc suuf tagg Seydina Mohamed mais dinaa la laaj leen rek. waaw parce que tey Boy Niang bi muy ñëw ci làmb jeune la waaw. nekk xale bu ndaw boobu ak tey yàggul su ma jumul 2018 la Lamine. Mhm. yaa ngi dégg tey ñu ngi 2023. Mhm. papa mi tam donte marqué na empreinte am ci làmb ndax bëri na. lu bare bare bëri. Mhm. ma maam ko ma mas a waxtaanal muy Bada John. waaw bu bawal xaw ma xam nga ko wala dégg. Bada John waaw na ko waaw Bada John ne ma déggul. tey li mu am nii ci làmb mhm. méritam la ndax dafa yàgg gunge mbër yàgg ngemb mbër mu dégg daal kon yàlla du réeral liggéey bi tey ñu leen dem ba jamono comme lii nga wax am booy ñaa jël ñaar ñi muy ñaar yi yooyu jur yóbbu màkk mbër yi nga fi gis yëpp tey jii ñu dégg daal ci mbappatam bi lañ daan ñëw man ak ndongolo ñoo ko daan way dañuy way vingt heures la ñuy commencé way ba trois heures du matin wala quatre heures mbapat bi jeex bu ñu paree maag moom ku ne juróom am ñibbi loolu way yi rek moo ñu neexoon kon tey jii moom moom tax na ñu bari dégg daal moom déggool kii bu naan aatu aatu aatu réer na moom la ñuy wax ndax baayam daf ko fee liggéey ba pare nag ndeyam muñal baayam doom yi soxna yi nañuy nañuy muñal seeni i jëkkër di jàppale ndax ndax kéwal du tëb doom ja bët barke Seydina kon nag moom lii mu am du chance mérite la te incha allah yàlla na ko am ba wàll ko nag ay nawlam yëpp ci barke Seydina Mohamed magam yi fii ñëw dégg naa ay magam ñëw nañ fii Eumeu Sène ñëw na fii ba ci Balla Gaye de adversaire am bi nga xam ne combat bu metti woon jeex booy ñang gagné Balla Gaye de dégg naa ñëw na fi waaw noonu la xam nga teel a nangu moom day yombali dóor te ñun waa Pikine lañ amul lu dul Pikine ñun waa pikin lañ xam nga tey ji muusu Pikine moo ñu gën moo ñu gënal gaynde Dakar Balla Gaye def na lu rafet nag def na geste bu rafet parce que tey ji sa yóbbu ñu ay waajuram màkk nga déplacé wu ñëw jaar si ko loolu geste bu rafet la te vraiment kóllëre googu moo xam nga xam ne defal na ko Boy Niang ah Boy Niang dina ko fay incha allah parce que bu ko neexoon toog di sóor leneen ba ñu ñëw mais moom ku ne xam na ne guerrier la champion la xolam dara ne wu ci waaw yàlla baax na daal. Euh, defe naa Boy Niang du mën a ñàkk mu rotal ay kàddu ci li Yves Niang wax ndax kilifa gi sëñ bi ñu ngi lay ziar cheikh bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax. lii nag yaakaar naa ne si Cheikh Ahmed Tidiane Ba macha allah mu ngi lay ziar. waa euh, ñaa ñaa day dañ la naan xamu félicitation lañ la war a wax yaakaar naa sax parce que tey félicitation lañ la war a wax waaye tamit mën nañ la wax jërëjëf parce que lii yaakaar naa neex na ci xolan ah. tey ñii toog say kilifa toog say mag ñoo xam ne ñoo sa papa woon nga jël ñoom ñaar ñëpp boole yóbbu Makka macha allah yal na leen ci tey loo yëg. waaw Babacar sant yàlla bu baax rek. di la nuyu di nuyu Yves Niang bi ma dëndal di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane ak ay nitam ay xaritam ay mbokkam comme li ko waxee di nuyu yaag yaag Lamine di kontaan tam ni ngeen fi teewee parce que fii da ngeen cee bokk xam nga bu ñu waxee Boy Niang dañuy wax monde làmb donc lii dama ko def defal ko su Boy Niang defal ko mbëri defal ko moon monde làmb yëpp comme li nga wax nit na amul lu koy waajur dañuy jaayante yëpp dimbali waajur rek moo taxoon xam nga mais waajur tamit mënoo def def def ba naw li nga def daal loolu def rek gasal suuf xam ne dafa dara xam nga parce que parce que li ñu def ci moo ëpp baax moom laan kon dañuy ñaan yàlla rek li ñu defal suñu waaju yàlla buñ ci gis suñu bopp xam nga parce que loolu li ñu war la daal lu ñu war a def la mais ñu ngi ci sant yàlla bu baax nag mais tamit di rafetlu képp ku fi teew mhm. képp ku fi teew rek nga ñëw fi rek mhm. kontaan nañu bu baax a baax a baax Babacar balaa muy ñëw ci ñi fi teew lii ban ban ban nga ko rêvé woon parce que rêve la boo xamante ne réalisé nga ko macha allah mais kañ nga boo xoolee sama rétro vidéo lamb yi yàgg na fu ma daanee damay gis man man sama waajur laa bëgg a jàppale waajur ba ay brise de mer yooyu ba yàgg na ba ma ko dara wax parce que loolu tamit si sama dënd la nekk donc foofu instant mi yi génn comme naan nga mais nit ki di bëgg waaye suñu borom du mottali daal mhm. waaye damay sant yàlla parce que suñu borom moom mottali te tamit dama am ba loon yéene boo xam te dama ko doon ñaan suñu borom moom moo ma ko may mooy le fait que bëgguma yóbbu kii bàyyi kii daal loolu nag dama nekkoon sama yéene daal waaye suñu borom tamit moo ko mottali ne boo yóbbee kenn kenn ki xaw na frustré wala dara daa am lu muy def daal ma bëggoon moo ma ko may mais sant bu baax a baax sant suma ay xarit suma ay am di jàmm suma ay mbokk sama côté yaay sama mbokk sama côté papa di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi yi fi teew chérif yi teew di ngi kontaan bu baax ma seen teew teew na fi te loolu kontaan nañ ci que Balla tamit def na lu rafet doomu daan parce que teewaayu Balla boobu itam jar na taxawa ah. parce que Balla Gaye ni mu Eumeu Sène moom bu fi teewee këram la ñëw parce que rakkam nga te itam yaakaar sa papa magam la wala papaam la mais Balla gay 2 bi nga xam ne moom nga mujj a bëreel te itam bi ngeen bëree yaakaar naa ne ndam la nga ci jëlee am na fu mu la yóbbu tey Balla Gaye 2 boobu sol dàllam ñëw tey ziar si la loolu wala ziar si say wéñu dañ ci kontaan baax parce que Balla ñëw na ànd ak baabooy ak benn frère am maa koy nuyu baax mais dañ ci kontaan parce que lii dafa wane ni làmb ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay te làmb espoir la mais du yaay ennemi Balla ba papaam suñu papa Double Less génn àdduna yoo xam nga ne kenn jiitu fa waaw est ce xaar Balla woo ma wala bañ ma woo damaa xam lii sama cër la parce sama papa la bañ ma suspendre amul ku ci a sonn ku dul Double Less Mbaye Gueye ak Mbaye Gueye yooyu lañ ci daj wax ak Alioune Sarr fu ne fu ne bañ def ñu bàyyi ma donc kon ñoom su may papa lañ Balla tamit gis na ni yóbbu naa sama yaay ak sama papa Maka ñëw na te dama ci kontaan ba pare Balla sama yaay dafa am cofeel ci moom moom mu am cofeel ci mère bi dégg nga yàgg na koo wax ne dafa sama papa déggoo tamit jël ci ay kàddu kontaan tamit war ni Balla doomam la te loolu leg la wax naa ko ci jotaay bi ma ne ko rek lii bokkul ak làmb dëgg la bokkul ñu tëggoon léegi ñu delloo jikko làmb yi ñëwaat mais buñ ji paree nag dañ ciy pare mënoo continuer di doon ay ennemis yooyu loolu làmb la làmb rek moo ñu boole woon mais des na set bu rafet Eumeu Sène bu ñëwee da naan sax dafa war dëgg la mais Balla bu ñëwee nekk na lépp ko rafetlu Pikine amul ko rafetlu sama mbokk papa yi mu fekk mbokk yaay yi ñëpp ñëpp ñëpp gaa yëpp kontaan sama goro ñu fi fekk ñëpp dañ kontaan ñëpp ñaanal ko paa bi ñaanal ko maire bi maa ñaanal ko donc li nga wax lépp lu mu ci jublu rek yàlla na ko suñu moom yokkal ci yiw ñaan yi nga fi ñaanal moom dal ko

loo leen di tey dama leen ko wax dañu ñëw di ma félicité man leen noo doolu ngeen may félicité parce que lii ñoo ko bokk maanaam ñoo ci àndi liggéey ko ba mu sotti boo ñaar rek bu demoon nii munu def dara dafa am ñu nekk ci kaw. sama papa père Xës père Lin père Bourxane père Maysa bari na waa famille Kandji bari na bari na bari na ñoo xam ne ñoo nekkoon boo ñaa père Mansour Diop ñëpp ñëpp waa Pikine sama ay supporters fu mu mënti ne ñoo ñoo taxaw jàpp góorgóorlu ba yàlla may ñu liñ ma ak samay xarit yu may samay doom nday sama frère Assane soo mag bi génn àdduna ñu ngi koy ñaan suñu borom ko àjjana Cheikh Fall ñooñu ñoo ànd di ñafe di ñafe ba boo ñaa même ba ñoo ànd di ñafe ba boo ñaa exprimé donc maam lii lu ma def la mais dama ko bokk ay nit yoo xam ne ñoo ànd def ko donc maa leen delloo njukkal bi di leen ci sant di leen gërëm bu baax a baax di nuyu sama Issa maa ngi ne sama frère Njaxas waa waa waa Lirisi waa Pikine kenn desul ñëpp ñëw nañ delloo ma li ma bokk ak yéen waaye li ma def tamit ñoom def buñ fi ñëwee tamit dafa war parce que ñoo bokk papa ci bokk yaay ji la maire ana seen yaay la waa ndaayeen ñu ngi ne ñoom badu ñoom mool ndaayeen gaa yëpp kontaan naa ci taxawaay bu baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant aussi Babacar Lamine vraiment demoon ngeen làmb làmb am na waaye fexe ngeen ne bu jeexee di ngeen fexe ba egsi ci Boy Niang te loolu tamit rafetlu naa ko quoi waaw parce que li may wax rek yéen da ngeen a contribuer suñu carrière boo nekkoon dañuy yàq wala ngeen ñuy wax lu bon wala nangu wala suñu champion dafay métti ñun waaye chaque instant lu ñu def ci làmb lu mu ndaw ndaw rek dañu ñaana yokkute maa ngi sant bu baax Cheikh Ahmed Tidiane su ma diggante ak moom xam ngeen ko Thierno su ma diggante xam ngeen ko ñoom su ma diggante ñoom xam ngeen ko yàlla moo nu boole waaw ndooyeen ma miin ko lool luy xew la maa ngi ci biir waaw sama ndaw ba ak jamay kees bu bëre dañoo bokk ah, ah, ah. Moodu dañoo bokk Moodu dañoo ba pare tey tamit dama benn affaire bu am solo mooy Père Ndiouga Dia dafee ñëw Moodu ak kii dañoo bokk kii dañoo bokk Père ante ne mi ngi fi woon ak nijaay Modou bi nu mu tudd frère am bi frère bi. Ibou mi ngi fi. te xam loolu dafa rafet. tey maa ngi dugg di leen tooñ maa ngi dugg di leen nuyu non non ñooñu non ñooñu perte wu lañ ñëwal. ñooñu. ñooñu combat bi sax sàpp ak kaan. voilà déglu ma wala sàng maa leen di wax ci xam nga déggoo leen ma. man leen dafa am loo xam ne làmb la. am loo xam ne du bu ñëwee ji mbër yëpp ay génn. fii amul luñ fi négocier. dëgg la ñëwul. ñu ñëpp ay frères lañ ay doomu jullit lañ ñëw nañ fi parce ñu dañuy teewal Père de Gaulle ñoo bokk seen association les sages et lépp ñu ñëw ñoom njóga ñoom Père Maxi Père Pala ñëpp ak sama turandoo Modou Gueye teewal fi sama papa ziar ko te loolu dafa rafet tey maa ngi leen toog dama ñëw fekk ñu añ <laughs> la ñu ñëpp ay frères lañu mais teewul nag comme li wax buñ jàppee dañ léegi nga gis jikkoy changé affaire yi la demee <laughs> mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon yor nga jikkoom <laughs> mais jikko lamb rek la rek la day soppeeku de man de sa soppeeku gi paas daf maa bett man damaa jaaxle. mais loolu lan rek làmb rek lay yam na loolu loolu loolu lan la woon. waaw bëgg rek bëgg ndam rek. booy ñaa muy tàkk rek bu jàmbaar bëgg ndab am foo juge am foo bëgg a jëm. il faut nga jaayante daal il faut nga jaayante bu ko jaree nga def li ko li ci war a mais bu paree nag nga lem si lépp ba mu roo ànd ak gars yi xam nga béykat yi loolu. le samedi 22 juillet 2023 à l'arène nationale mbokk yi déglu leen Mousnakh production ma woote bés bu mag ci diggante caatu Kairé ak Cheikh Niang lamb ndaanaan la lambi jàmbaar la waaye Mousnakh du yem foofu ndax dalay indil allemand boole ko ak junior ñaq jariñu numéro 2 jàkkaarloo fa ak Njaay Waalo Chikorien ak Nekurelu numéro 2 Moussa Rëg-Rëg ak Ngom Flèche bébé Eumeu jàkkaarloo fa ak Fils de Rone mbokk yi Géej Senghor jàkkaarloo fa ak jàpp jeex waaye Boy Niang numéro 2 ak ordinateur dinañu fa jàkkaarloo Gaynde Nooto jàkkaarloo fa ak Fils de Saly liste numéro 2 jàkkaarloo fa ak doubles numéro 2 mbokk yi Mouss-Nakh production nag wéetul ci bés bi benn yoon ndax Harmonia da koy gunge ETDR établissement Touba Darou Rahman King Boisson entrée supporter mu ne 2000 francs loge officielle mu ne 10 000 francs ci le 22 juillet ci arène national ñu ànd ci ak Mouss-Nakh production